sëriñ bu ma dundee tey ba ëllëg sëriñ Cheikh Fall Mbaor la dafa amoon ay jëmmi jamono docteur yi xamal na ma dangaa war a faatu ma jooy ñu wax ko ko waaw ma ngi ci xaritam bi di sëriñ Abdoulaat keroog fa lañ ko bada biy fekk bada biy sama seere ma dem mu ñëw mu boole maag waajuram wu tedd ba di soxna Afsatu Jam yabal ma ci sëriñ Abdoulaat dox ma leetar bu mag ma àgg ci sëriñ Abdoulaat fekk fa seex gube ñu ne ko kii sëriñ Cheikh Fall Mbaor ko yabal mu daal di ne ñu ne ko kii kat dañ koo xamal ne ko nee docteur yi ne dafa war a faatu sëñ Ibrahima dañuy wax rek loolu de nee ko dañuy wax rek dugg ci biir bind ab a jox ma ne ko boo demee neel Cheikh Fall ne ko fii mu jëm bu mu ragal dara kii day dund kon man lu ma dundati dama ko war a ñaqal Serigne Cheikh Fall Mbor ndax bu du woon ak moom ba nëga di faatu naa bu yàgg kon sama tey ak sama ëllëg lépp dama ko war di sonnal Serigne Cheikh Fall Mbor looloo waral cant gi